di xool loolu dëgganul dañuy participer nañuy jël suñu alal nañuy jël suñu ñak di ko def di ko boole ñaqam di liggéeyal maam moo tax nga xam ne moo nga xam ne billaahi billaahi dong moom dong laa yoroon laa yoroon def naa def ak nga dem baw bu bi billahi rajim rahim ala rasulillah ah maa ngi nuyu kilifa yu tedd yi fi toog yëpp di jéggalu bu baax a baax a baax ci kàddu yi may yëkkati ndax diis na trop ci man nekkul ni dama dàq wax kenn waaye nag dafa am loo si buñ la ko la ko joxee faw nga nga même loo tële tële waaw nga nam na bi ginnaaw bu ñu santee kilifa yi mag yi tedd yi teg fii yëpp di leen jéggalu parce que jotaay bi yàgg na ku ne xam na ko mais jotaayu diine la islaam la eh, Pa Ablaye Mbuub ñu ngi lay sant di la gërëm Serigne Mahadou Cissé mboolem délégation bi ngeen àndal Pa Ablaye Mbuub yaakaar naa laa rendez-vous a été tenu eh, comme ni ñu ko waxee woon fële ci salle bi waxoon nga di nga yëngal bi waaw <laughs> ah, yëngal nga ko trop wax dëgg yàlla fii ku xam cene ba xam ne fii tey saf na sàpp cene ba ñu ngi lay eh, ndokkeel di la sant di la gërëm yow ak eh, Serigne Mahdi Cissé guddi guddi na nag du ma guddal li ñuy def rek mooy sant kilifa yi dëkk bi ñi nga xam ne ñii lañ bokkal dëkk bi mooy suñuy kilifa di ci jiital suñu imam Aliou la di ko ñaanal yàlla yàlla yokk wér yàggal ko fi di ci topp di ci nuyu suñu chef du village Papa Abbas mu lay nuyu di la ziar parce que soo ba léegi. noppaloo gis nañ sa taxawaay na yàlla yàggal la fi bi ci topp mooy ki ñu parrainé la woon suñ bis bi mooy monsieur le ministre Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse sa représentante était partie euh, tantôt mooy maire bi fi ñu jógee léegi maire Fatick moo moo fi teewoon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko yóbbante suñu nuyoo mu joxal ñu ko monsieur le ministre Pape Malick euh, sëriñ bi am na lu ma la waxoon daaw euh, parce que c'était la première édition ni la première édition lañ nek ab daaira bu ndaw lañ bu neew doole lañ te xam nañ la bu baax nañu ñew ñëw ba di la wax ni la nga ñaanal ñu luñ man reen bu deewene ñu man lu ko ëpp yaakaar naa ku fi teewoon daaw xam nga ni ñaan googu nangu na parce que ku xam tantu daw bi ak bu bi xam nga ni am na am di nuyu sa mbokk sa atak sëñ Ibrahima Seck ñu lay sant di la gërëm ci sa nga bis bi sa man jàpp leen bis ma ñëw fa As yàlla dogal loolu affaire bi sa waayroon la nga waxaat ni ko ñoo defoon benn groupe waxtaan nag ci ko sopp As ñëw ziare la eggee la ko suñ joxe bis bi ñu wax la ñaanal ñu sax mu nekk programme annuel waaw léegi nag ñu ngi lay sàkkuwaat ñaan comme ni nga ko waxee woon daaw yow ak Ibrahima ak mbokk yi yëpp ngeen def ci ñaan ba année ku fi ñëw xam ni ren moo daax bu bu daaw bi gën a danañ am avancement nga ñaanal taalibe yi tamit yàlla defal leen sutura parce que li ñu yéenee lépp ci kër gi ëpp na lii li ñu yéene ci liggéey moo amoon ndax ëpp na lii ñaanal leen sutura di ñaanal euh, mbokk yi léegi li ñuy def mooy ñu dugal suñ porte parole kooku moom moo war ci turu daayira bi sababu rasul euh, ñu ngi koy tuddee Serigne Saliou Seck maa ngi jéggalu ci kàddu yi lépp lu ci jóg suñu problème li ci ñaaw rek xam ne sama ñàkk xam-xam la waaw baax na Serigne Sall fekke alhamdulillahi munim ala man ataahu wattabaa ridaahu المنتخم ممن خالفه واتبع هواه الذي يعلم ما أسر العبد وما أخفاه المتكفل بأرسى عباده ولا يترك أحدا ولا ينساه ياهو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الدهر وانتهاه ورضي الله عن سيخ الأكبر والكبريت الأحمر والقطب الأعظم وارث سر جده خير عرب والعجم صلى الله عليه وسلم سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد تيجان أبي فايد السمداني رضي الله عنه وارضاه وعن أبي آمين وعن جميع خلفائه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب والجزاء أما بعد أيها الضيوف الكرام يتيب لي أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن أعداء دائر أصحاب الرسول بسنة طلب على منحكم بعدا من وقتكم الثمين ليتمكن لكم أن تكونوا معنا في هذا الحفل المبارك يسرفني أن أرحب بكل حاضرين في اجتماعنا هذا وأقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم بقدومكم ومشاركتكم وأرجو أن يكون اجتماعنا على الخير والفرح نحييكم بتحية من القلب يطيب سسا مسكا وريحانا تحية أهل الجنة يوم يلقون سلاما فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأبدو بتحيتي بإمام الخرية سرين علي سل حفظ الله وراعه ثم رئيس الحي سرين عباس سكو حفظ الله ورعاو ثم رئيس البلدية سيخ مباكي سوك حفظ الله ورعاو ثم خليفة سري إدريس سك سري محمد حافظ سك سفاه الله وأيده ونصره ورفعه بجاه نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم الوفود الذي يأتون من شرب سك على رئيس الوفد سري آس سك برمدقل حفظ الله ورعاه مع جميع سرائه داير أصحاب رسول فرحوا بحضوركم ونذكركم خالد السكر خالد السكر نصركم جميعا بلغوا سيارتنا وتحيتنا إلى خليفة حسن سيف حفظ الله ورعاه وأقص أيضا بلسان دائرة كلمة السكر وسيارة وتهني عن سيخ سري إبراهيم سيف ابن سري عبد الرحيم سيف رضي الله تعالى عنه ينبقي أهل شنب سيف أن يدعو الله له أن يعطيه الصحة والقوة على إتمام نيته في هذا الخير. ونذكر أيضا العرب الأول سري إبراهيم سك وسري إمام عيسى سك وسير الصباب مالك نور ومالك جوب مالك جوب بوكنجي يوسف سك ومقر سك نذكركم جميعا رنا مع سرين sec Seck Serigne Moussa sec ni ma a guddal ñu wax olof tout rek bañ a guddal ginnaaw mi sant suñu borom jun ci sallallahu alayhi wasallam dina am sant suñu borom julli ci yonent tibi yeen mbokk yi tedd ñu ngi leen dalal baax di wax ni contane nañ baaxa baax ndax jël ngeen seen lenn seen temps dañ koy jox te xam nga ni jamono xam ni temps amul temps yombul way ngeen jox seen temps pour ñu bokk and ak ñun ci bisu tedd bi ni ñi ngi sant képp ku fi nekk nag nuyoo bi nag ñi ngi commencé ci imam mooy Serigne Aliou Sylla yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla kattanal topp ci chef de village mooy Serigne Abba Seck yàlla na ko yàlla sàmm topp ci Cheikh Mbacke Sow kasaalika ñu ngi koy nuyu baax a baax boobu xalifa sa Idrissa Seck mooy Serigne Mouhamed Habib Seck ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla saafara yàlla na ko yàlla dëgëral may ko kattan ba mën a nekkaaj sawam ci barke yónneen salaay salaam moom ku xam ne lu waay gàtt gàtt xel loo nekk xale xale ku ñu xam ne taxawaayam ci yoonu Thiénaba leer na ma fekkoon kattan may nag ak wér-gu-yaram fii ma taxaw ma mën na fee taxaw ñu ngi ko waxee moom oyofam ak bëgg xam-xam ak fonk yoonu Thiénaba dina taxaw fii ma taxaw waaye si mbooram nag ay mbiram noonu la yàlla na yàlla saafara ak mboolem ñu yéen ñëpp ñu leen sant ñu ngi sant délégation bàyyi ko Thiénaba xam nga Thiénaba ak fii sore trop booleeg temps amul ñu ngi leen sant yéen ñëpp ñu ngi jiite ku ñu sant nag ki nekk ci bopp mooy Serigne Arsek borom digal ak mbooleem ñu mu àndal rek ñu koy sant baax a baax daayira asxaabu rasuul ñi wax daal kontaan nañu baax a baax a baax kontaan nañu baax waaye ñu ngi dégalee suñu sant nag Serigne Ibrahima Seck ndax taxawaayam rafet na trop dëkk bi ndax fa fa fa baayam jaaroon yoon boobu la jaar ndax lii mu fondation mooy daara ji rek doo sa ndax dëkk bi daara la nekkoon daara waaye xëy na suñu xaw a yaafuus moo tax maanaam loolu daal fay moom na yoon bii mu jaar nii xam naa ni bu ko yàlla dimbalee daara dina dekkiwaat boo boo génne bu ñu nee foo dëkk boo ne mbos ñu ne foofu mu tawaarakal la ndax heure boo ne mbos laa dëkk rek ñaan foofu mu borom dëkk lii woon daana boo ñëwee doo fekk dara moom mii nag incha allah ñu waa Thiénaba yëpp nañ ko ñaanal suñu borom pour loolu daal di mën a nekkaat ndax diine kat pour nga mën koo pratique mu wér faa nga jàng diin du xel moo tax maanaam diin daa reew xel moo tax lu sa xel neex a neex a neex faa nga jàng ko dañu ko nag waa Thiénaba gépp war nañ ko delloo njukkal ñaanal ko yàlla ndax fa bàyyam taxawoon moom fo tànk yi foofu la taxaw ñu ngi koy sant bu baax a baax ak mboolem rakkal yi mbokk liggéey bi rek ñu ngi koy sant. bisimi nag am na ñoom dañ leen a péréné woon kii jiit moom mooy sëriñ Ibrahima Seck ci la bokk tabaarakaal ñu ngi koy sant baax a baax ak sëriñ imam Issa Seck Kasarika ci la bokk moom ñu ngi koy sant baax a baax ak ministre de la jeunesse mooy Malick Pape Malick Diop Pape Malick Ndour moom nag teewul waaye am na ku fi teewaloon ñu tudd sax. maire Fadi Gueye. maire Fadi Gueye léegi la dem xam naa toogaay bi métti moo tax tabaarakaal gis nañ taxawaayam baax a baax yal na yàlla jàppale ñëpp tabaarakaal bokk na ci Kasarika Malick Diop ci la bokk. moom tamit taxawaay mi rafet na trop ak sëriñ yu Seck ci la bokk tabaaraka ñëpp yan a taxaw ak Magal Seck ñoom ñëpp daan asaabu rasul daal ñoom ñëpp ñu leen sant bu baax a baax bàyyiwuñ kenn bisimilah ni ñu tuddee rendre hommage ñaan nga rendre ndax fàttali ko way jiitu ñi dafa am solo te mooy Serigne Lamine Seck moom nag ku ne xamoon ni jàmbaar la jàmbaar la baax a baax a baax moom mi ngi juddoo woon fii fii la jàngee jàmbaar la woon. bi mu jàngee ba mustawaam xaw a kawe ci la dem nag mbos mbos mbos la nekkoon di jàng ba mu jàngee ba mustawaam xaw a kawe tamit mu bàyyi koo mbos jëm Kaffrine ba mu nekkee Kaffrine kasaal di jàng ba mu mustawaam xaw a sore tamit mu bàyyi koo Kaffrine daa dem Dakar yëpp xam-xam rek xam-xam rek ba mu jógee foofu kasaale ba njàngam sore tamit ba mu toll ci benn nuwe bi la bàyyi koo foofu jëm dakaar ba mu demee Dakar nag la bàyyi koo Dakar foofu léegi moo dem ndar na dafa benn formation nekk militaire ndeysaan pour liggéeyal waaw militaire lu am la mu bàyyi koo foo dem ndar nag pour def benn formation pour nekk militaire moom bokkoon na ci maanaam ñu tànnoon sa mission war dem xeexi waaye yenn saa yi dañuy tànn pare am ñu ñu wàññi moom yàlla dogal nañ maanaam mu bokk ñu wàññi woon moom jàmbaaram ko saale liggéey jaam yàlla rek ku bëggoon sport rek saale bëggoon sport trop grand rek karaat da def am na ay médailles sax tabaarakàlla ci sport boobu sax waaw avant loolu sax ba maanaam ñu ko wàññee dafa dem Dakar nag ci benn xaritam benn muy liggéey ndax daam benn benn diplôme mu sagam sagam ci lañ ko jëlee muy liggéey foofu ci loolu ci la nekkoon Dakar nag waaw waaw ku bëgg sport la ci mais ci sport bu mais bi ñu faatu sax maanaam corde lañu benn corde la yoroon noonu bii lii corde ci la faatu noonu ñu ngi koy sant bu baax a baax tabaaraka ak sëñ Moussa Seck tamit ku ñu xamoon ne moom bëgg xam-xamam ak lewetam ak lewetam moom heure boo ba ñu nga njëkk seen sëñ Moussa Seck bëñ yi bëñ yi nga seen ku déggan lu bi la nee na keroon jàngal si Mourou Xaas ma waroon jàngal waaye yenn saa yi naar seet see sax moom lay bàyyi wax ak moom ndax maanaam daa teeloon a comprendre la luqatu arabia ak leewataayam tabaarakàlla bu utal na ko burus maanaam burus sax pour mu bëgg génn waaye yàlla daa dogal ki waroon àndal moom daa xëy Moussa gont loolu tax jotu dem sax ñoom ñëpp daal ñu ngi ñaan suñu borom mu yërëm leen te jéggal leen waaw ginnaaw loolu nag ñu ngi sant maam daara asxaabi rasul ñëpp ndax lii ko xam ni kat ñam taxawaay ñoo ko man bëruñ waaye seen pas-pas maanaam moo tax li lii am ñun ñëpp ñu leen sant góor ak jigéen mag ak ndaw ñu leen sant baax a baax ñu ngi sant mi daayira pour cent Pa Malick ñoom ay xale waa dañoo ànd dox ñu xaalis bare bare bare ñun ñëpp nekk njiit nag mooy Malick Sow Malick Sow jàmbaar moom xale bu xàmmee la te xale bu xàmmee rek mën a ànd ak i mag maanaam yàlla na baax yàlla na yàlla taxaw ñu ngi leen sant baax a baax bàyyiwuñ kenn daal ñu ngi sant képp boog daayira asxaabu rasuul góor jigéen ma ndaw ñu ngi leen sant bu baax a baax di wax sëñ bi daal ñu ngi sàkku ñaan nangu na waaye na gën a nangu rek ba bu déwénee incha allah tant bi gën a ala daw na ñu ngi jéglu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu leen fàtte abonné seen seen YouTube Shamsu TV bi leeral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 bege ba aljana ay waay di ko bege waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bege ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bege ba aljana di ko bege